salaamaaleykum maa ngi jëloon ziar bu baax a baax aha waaw loolu kon taw fii ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu bi gin donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla sëñ Fall bil xayri wal mafaasi alhamdulilah. central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi.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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر أردت يوم سفرها بلا سفر لخدمة المختار أفضل البشر taarix ba mooy junneeg daal yàq lim bi lee woor bi itam nag bi muy na njaareem xatoon lool fu na nit di fa jógee di ko fekk si njaareem délégation yi kenn xamul nu mu di siyaara si fu ne lañ ko daa fekk waaye njaareem nag da caaraw ndax ni ma la waxee léegi njaareem fa la gën a yàgge nee na nee na bu fekkee wàllu murasalaat yi ñi nga xam ne ñëwuñ waaye seeni ndaw ñëw na ak seeni leetar fekk sëñ Tuubaa njaareem lu baree bari la tuddu na ca mbokk ma alxaaji Malick si wuti waawoon sëñ Basiiru nee na seen seeni murasalaat dafa saxoon moom waxtu wu ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jokkoo ci ay ci ay ndaw ak i leetar nee na dara du xew ci kii lu am solo lu dul ko yónnee yëgal ko ko na loolu dogut dogut seen diggante ba ni Alaaji Maalik génne àdduna nga xam ne moo jëkk a génne moo moo jiitu sëñ bi nee na bu dee ci biti itam naar yi ba ci waa Madina yónnee woon nañ ci sëñ Tuubaa waa Madina am na boo xam ne 1927 ci mujj gi rek am na waa Madina yónnee yónnee yónnee nañ fa qaadi Ibrahim moo jiitoon délégation ba ngir yitte ju ñu amoon ak sëñ Tuubaa xasida gëm leen tontu woon ilaa nabiyyin rasulin jaana bi huda mahmuud ihtada bi kitaabin jaabihi fahada maa ngi leen di wax ci biir xasida ka fostum bi kaw nib ni abdillahi jaarakum wa kawnikum xawlahu fal tahmadu samada yéen dëkk ngeen dëkk ak yonante bi rek doomi abdullahi ji doy na leen ak texe kon ginnaaw nekk ngeen ci wetam di dëkkandoom sant leen yàlla ci lool loolu rek doy na kon ñaanal leen ba mu leen ñaanalee itam la leen taxoon a ak sunu borom saafara ko njaareem xam ngeen ne jumaa njaaram ji fa la ko sëñ Tuubaa taxawale ci nakam moo joxe woon ndigal li ci atum halsach 1917 fii jumaa ji nekk tookaru puloox la woon ku ñu wax may sa njaayee ko moomoon góorug bambara la moom rek a fi dëkkoon booba ci wet gi féeti nii ay sëtam ba tey am na benn sëtam boo fi des kook soo demee ci archive national loolu nga cay fekk sëñ baaw woo Seex Isaa waxtaan ak moom ne ko nga dem waxtaan ak may sa jaay ndax foofu mu nu ko ba nee wecci mu wecci nu ko Seex Isaa waxtaan ak may sa jaay may sa jaay nangu ko jaay ci ñeen fukki dërëm ci xaalisu ngordu moom la ko jënde le 22 mai 1917 la Seex Isaa jënd foofu ci 200 francs ci xaalisu ngordu ñeen fukki dërëm sëñ Isaa ànd ak may sa jaay ñu dem kër commandant ngir ñu signé kayiti penc mi moo tax penc mi moo am ay kayit waaye sëñ Tuubaa këram gii mu dëkk bu yàggut lañ ko wutal ay kayit waaye moom fi jumaa ji nekk ko ñoroon ak daari kaamil ak kàddu jullikaay gi <clears throat> nga xay moom ak ci penc mi ba ñu demee lebaas de la corps booba moo doon ancien commandant de la cercale moo signé kayit yi Cheikh sa Diène signé ci ndigalal Serigne Touba Maysa Njaay si ñu ñëw nag Maysa bu dipp loo xam xattaa bi rij mu baarakati la sëñ mat la bin Jóob danga na bind sëñ Tuubaa moo rëdd jumaa ji ci tànkam waaye ñu nekk ci dajale taalibe yi di bind di dajale di dajale addiye yi ba sëñ mat la mi nee na guddig guddig guddig dimanche guddig dibéer la ñëw xib laal ko nag xib laal ko rëdd ko ci tànkam bu te bu barkel ba bu tedd ba rëdd jumaa ji ñu tàmbalee gas fondation bi atak genn wàll atak tuuti lañ ca teg mu noppi sëñ Tuubaa teg xeer wi nee na jumaada thaniya atum wala sach 1918 la ànd ak mbooloo mu baree bari génn teg xeeru jumaay njaareem nee na ci wetam muridam ba sëñ Moxtaar Bintu loo ne fa nga xam ne ba mu tegee xeer wi ba noppi moom la jox tuural beeg lam lam doon tegee ne ko defal ni ma def sëñ Moxtaar Bintu Lo wutu daal di jël jël dëturo bi wax bismillah duur na na ko sëñ Tuubaa defee rek jàng aaya ja wa is yarfau ibrahimul qawaida min albayti wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim defe naa mel na ne mooy mooy foto bii mu jegéen na nga xam ne sëñ mat lamin nam ko nam ko waxe woon ca irwa bu yàgg ja daanaka ba fi sëñ bi jógee rek noonu rek daanaka moo ñëwee ci nataal bi noonu nee na ba mu tegee xeer borom su ma tanaxa wasalla rakaatay nii noonu ko sëñ bi lamin binde woon dafa dafa dafa randu tuuti julli ñaari raka moom muur gi nag tàmbalee tabax di dajale xaalis di tabax. waaye liggéey bépp mu yëkkatikoo teg ko ci loxol Cheikh Issa Diène ñuy nat ak rëdd ba le 11 mars 1918 sëñ Touba teg xeer wi ci jëkk ànd koog Cheikh Issa Diène ak mbokk ñam ko àndaloo ñëpp sëñ Balla Faali Jëng ni ma ko waxee yor carnet bi sëñ Mor Absalo yor matériel bi Cheikh Issa di kilifa liggéey bi. ba ñeente at gannaaw bi la la àgg 1924 ñu julli ko mu ne waaye sëñ Touba julli wu fa nag lu dul ayit julli gi ayit dong la la sëñ Touba jotee julli ca gannaawam nag la la maam Thierno. gannaaw sëñ Tuubaa la maam Cerno joxe ndigal ñu tàmbali fa julli julli ajjuma njaareem nag xar baax yi moom daanaka moom buñ ko xar baaxee rek dooyoon na émission moom la fa sëñ Tuubaa def ci xar baax dooyoon na ca sëkk rek naar bi nettali na ko ca euh, karaamaat Cheikh Ahmad Bamba téere boobu mu bind nee na am na bi sëñ Tuubaa di jàngalu jazbul qulub bañ agsee ci wan fajaral maa un namir fi mu waxee si ne bi yonent bi ndox mu neex fàcc na ci ay baaraamam fa mu ko waxee rek bañ ko bañ jàngee ba agsi foofu mu tàllal loxo bi ndox mi sotti ko ba dañ koo laal mu soog a dal loolu di wane doll gum doll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ci wàllu alquran xar baax yam ca defoon am na bu ci sañab laat nettali woon defe naa ñëpp dégg nañ ko waaye am na baneen ku ñu wax sañu Isaa Gay Bakura bindkat bu mag la woon nitu ko alquran la woon da ko bindalu kaamil andi ko ba mu ko téyee rek ne ko rafet na wér na yow ma yaati rek yow ma yaati ja yaaga da nga koo jokkale te daa dog wurta wurta wurta jokk ci baat bi loolu rek moo sikk ci mbind bi moom ko téyee rek gis nga wenn xaraf bañ ko ubbee noonu lañ ko fekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moom xar baax njaarim moom daanaka lépp xar baax la woon ba ci nag mu muharram atum moom sas bi nga xam ne ci la delloo ci boromam radiallahu taala anhu xutba ba mu mujj def ndaje ma mu mujj def ak murid yi xutbatu wam sas sañ ma Lamin ma ko fekk bind na ko xutbatu wam sas mooy discours discours bu atum wam sas 1927 ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru tamxarit bisub gaaw la woon ca tàkkusaan sëñ bi dafa joxe ndigal ne na nañ ko wuy si ba mu julee tàkkusaan ba noppi nag mu xutba xutba bu mag ci gaaw boobu bokk na ca beneen wax ayuha nnaasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum atlaqakum li ibaadi maanaam na ngeen jaamu yàlla mi nga xam ne moo leen bind ngir ngeen jaamu ko atlaqakum li ibaadati na ngeen ko jaamu nee na bokk na ci ay àqam ji mu ji mu ji mu jëflanteeg yéen xamal na leen ay ndigalam ndigalam ya nga xam ne moo leen di yóbbu aljanna xamal na leen ay teram yi nga xam ne moo leen di topp ko rek bañ a wàcc tere yi moo leen di yóbbu sawara kon yàlla wàccoon ak yéen nee na kon nag ngeen ci ci tënk rek ñu tënk xutba bi na leen ñaari masala yii na ngeen ci teg seen tànk te bu leen ci jóge dénk naa leen ko muy ngeen xam la ñu leen digal di ko def xam la ñu leen tere di ko bàyyi sëñ Tuubaa bokk na ci lim digle na leen na ngeen takk leen seeni loxo ci ñaari masala yooyu ndax xam-xam ñu jëkk ñaak ñu mujj ñe weesuwut ñaar yooyu xam liñ la digal di ko jëfe xam liñ la tere di ko bàyyi teg ca leen ne leen wajtahidu fi salawaatil xams na ngeen farlu ci julli yi juróom farlu ci sarxe farlu ci ñaan loolu wax na ko ci ngoonu gaaw boobu nee na ba mu ba mu ba mu waxee loolu ba àggal dafa dellu ba timis jotee moo dellusiwaat jiite timis nee na ca la ko jàngaloo njaal benn suratul baqara moom sëñ Lamin mu ko bind sëñ ma Lamin Jóob nee na mu jàngaloo ma suratul baqara ma tàmbali ba ca muflixoon mu ne ma melaw jullit yaa ngi noonu ne ma wéyal ma jàng ba ca azabun awlahum azabun azim mu ne ma melaw kii yéefar yaa ngi noonu jàllal ma jàng ba ci ma jàll ba ci maa yuxaadiuuna illaa anfusahum wa yashurun mu ne melaw naa feq yaa ngi noonu ne ko sunu boroom li mu wax ci alquran bi maa unzila ilayka maa unzila min qablika jullit ñi dañuy gëm li yàlla wàcce ci yow gëm li yàlla wàcce woon ca ñala la jiitu sëñ sëñ Tuubaa nee na li mu tax mu ànd loon mooy di leen moytuloo di leen moytuloo parparloo kon par par parparloo bokk na ci sëñ Tuubaa mujj dénkaani di ko moytuloo di ko moytuloo murid yi ni ko sëñ Tuubaa ni ko yonente moytuloo woon jullit yëpp sëñ Mat Lamin nee na ba mu jullee gee ba noppi ba def loo ba mu nee na ba mu jullee ba def loo ko loolu ba noppi dafa dafa dafa nëbbu bëti nit yi tuuti waaye ndekete génnut jàkka ji dem delluwut ba gee jotee moo taxaw jiitewaat gee ci gaaw bi nee na nag ba suba jotee itam moo delsi suba dibéer gi fukki fan ak juróom ñaar ci tam xarit nee na sëñ Tuubaa moo delsi jiite leen suba nee na julli googu nag la mujj jiite mbooloo mi julli suba googu nee na nag ci la fatoo nag guddi dibéer googu ci la fatoo sëñ fa Faat Tàkko bi nga xam ne nee na moom daa fekk lépp nettali na ko ci benn bande sëñ Ablaay Jaxate moo ko ko def la woon mu enregistré ko déglu na bande bi nee na guddi nee na suba yoor yooru di biir boobu lañ mujj gis sëñ Tuubaa nee na bokk na ci li ko sëñ Tuubaa mujj wax ne ko waxal sañ aafe bu julli jotatee na jiite ba gàmmu ka nee na kàddu googu la sëñ mujj wax ak doomu aadama nee na man it nee naa ko awasaar daa wéradi may ko ak ñaan soxna Awa Sarr ci jàmbaari kër gi la bokkoon mi ngi woon ci biir kër gi daanaka doon doon bëkk nekk nee na loolu itam la sëñ la mu doomu aadama mujj wax ak sëñ Tuubaa sëñ ma sañu sañ safa tàkko loolu la wax nee na nag gisaatuñ ko gannaaw yooroorub dibéer boobu gisaatuñ yëga xamaatuñ lu bokk ci sëñ Tuubaa yan doo noonu ba fanaan xëy suba ak altane nee na suba altane gi nag taw na taw bu woyof boo xam ne sëñ Ibnu Amar da daa root nee dem na ci teen bi root ñëw bi mu dëggee tànk bi rooti bi mu daataan dellu ñu gis ne tànkub sëñ Tuubaa dëgg na ci kaw tànkub sañ Ibnu Amar ñoo xam ne sëñ Ibnu moom ci suba la jaar fii tànk bi ci kawam la dage kon suba ak gi loolu moo ñu xamal sax fa sëñ Tuubaa dugg kees ga mu nekk bu toon loolu duñ ko xam ndax foofa daana fa gëj nee na foofa la dugg nag nee na muy suba ak waaye taxul ñu gis ko taxul kenn xam ci moom dara nee na ba ca talaata ja nag sëñ Mburu Moustapha jóge ñaaxeen jaar gaawoon ñëw njaarim ci bëccëg diggante tisbaar ak takkusaan sëñ Sefa takku nee na la sëñ mu Moustapha ak si njaari nee na boobu it lu mu ci xamul ci baatin xamu ko ndax ñun ñoo ko gën a jege di bëkk néeg yi te xamuñ ci dara nee na nag sëñ Mat Lamine nag dem fa moom ne ko sëñ bi dal yënguwut ñetti fan yi neen nag ba mu ne ba mu toogee ba jant bi soo ci talaata ji ci ngoon talaata ji mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram mooy bisu magal Daaru Xuddus nee na ba jant bi soow nag la ànd ak ñaan na ca ñamu àndal sëñ ba Lamin sëñ xarit sëñ Seex Fatak sëñ sëñ Maxtaar si la bëgg nekk ñu ñëw nag ba ci néeg bi ba ci la ci ci gàttal rek ci tënk ndax net li boobu dafa daw yaram neexut a détaillé ci la ci la fekk yëfi mbir mi xew sëñ bi dellu ci boromam mu dem ci sëñ Balla ñu dem yëgali ko commandant bi commandant bi ñëwal boppam ba mu ñëwee ba mu kër gi dafa doon buntu penkook buntu saw ba mu ñëwee sëñ Moussa daa jaare ci buntu penku ba ne tubaab bi na taxaw ci buntu sow bi ñu ubbil ko mu ñëw ñu ubbil ko mu ñëw ba tiim sëñ Touba gis ko xam ne jóge na fi sëñ Moussa Fatakku nee na loolu am na ci nee na sëñ Mor Moussa bi mu ñëwee ci timis gi lu jiitu loolu ba gis sëñ bi dafa génn ne sëñ Cheikh Xari Jeng demal woon ma demal woon ma Bachir sëñ nee na maa ngi taxaw kero dajaa teg sax ne noonu kero da koo sàllalu noonu loolu la ci teg xam naa xew-xew beek ni mu demee la nee na fekk sëñ Basiru daana génn waaye bés boobu mu ngi fi ñu wooyi ko ba mu ñëwee mm, wax ne nañ ma woy Mouhamad Tàndax yi am naar la boo xam ne ku jege woon sëñ Tuubaa daana ko noddal ak yu mel noonu ñu dem wooy fekk da ko faa fekk mu dem wooyi ko mu ñëw sëñ Modou Moustapha nag ci leen joxe ndigal ñu waajal sëriñ bi fekk ba tubaab bi ñëwee nee na ko dama ko bëgg a yóbbu ca këram ga ca Tuubaa tubaab bi juboo ceeg moom gannaaw buñ ko bu mu ko joxee garanti ci la jox ndigal sëñ Cheikh sëñ sëñ Mat Lamin Jóob Dagana Mahamad Tàndax yi sëñ Cheikh Xari Jang ñu ñu toppatoo ko defal ko nañ ko defaloon yonent bi ba ba yëf yi àgg ñu ñu ñu sëñ Mourou Moustapha te lépp sëñ Safa takku na nag kenn yëgu ko ci njaareem njaareem li ma la wax léegi mbooloo mi ni mu tolloon waaye kenn yëgu ko mat googu sëñ Mourou Moustapha def na ko ci la fa nekkoon ci kilifa kenn xamul nu mu toll waaye kenn yëgu ko ci ñii rek ñii rek ña ko yëg ñëpp ca njaareem ëppuñ fukki nit ak ñaar nee na waajal nañ ko ba mu jox ndigal sëñ Bachirou mu ñu dugal ko ci oto bi mu jox ko mu dem sëñ Moussa am daa des njaareem yebal sëñ Bachir mu ànd ak sëñ Mat Lamin nag sañ sëñ Mouhamad Tàndax sañ sëñ Mor May ku baax la woon natt la ma foofu ne ma biñ nekkee ci oto bi di ko yóbbu sëñ Mat Lamin mm, ak sëñ Mouhamad Tàndax ñu tiim ko di jàng alquran. nee na bi ñuy ñëw Touba toll nañ diggante boo xam ne gisatuñ lu bokk ci jëmmi sëñ Touba gisatuñ ko waaye nam leen yaare woon ñu wéy rek di jàng alquran nañ daa def ba ba ab diir mu dellusiwaat loolu kii man nga ko feeñ na fa ci guddi googu nee na sëñ Mour Moustapha nag ba mu leen yebalee ñu dem ba ba génn bay war a toolu ndulu ci la woo nag ci la woote nag soog koo yëgal bokk yi ñu ko yëg ñëpp soog koo yëg waaye fekk ne sëñ Touba dem na fekk nag yebal nañ sëñ Abdoulaye Diop Léona mu jëli maam Thierno Darou Mouhty mooy sëriñ sañ nekkutoon biir njaarim rek sëñ Fallou ñu yebal ko dem Gédé jëli ko sëñ Seexare ji dem Gédé jëli sëñ wax ko sëñ Fallou ñu yónnee ci sëñ Bakki Boussa ñoom sëñ Ndam Abdourahmane Lo ñoom ñëpp ci sëñ Mandoumbe sëñ Madlamine Gaye sëñ Baara Xari Fall ñoom ñëpp fekk nañ ko Euh, ba ba ba na ca guddig àllarba gi guddig àllarba gi nga xam ne téere siire yi saxal nañ ne yonant bi guddig àllarba lañ ko jébbal boroomam noonu lañ ko defalee sëñ Tuubaa ci Tuubaa guddig àllarba googu nga xam ne àllarba ja mooy ñaar fukki fan ci weer muharram ci lañ nekk di ko waajal ba julli suba jot ñu desa tuuti ñu ñu ñu ñu ci la ci la ñu noddu dem julli ji ba àggal soo ko ñëw àggale soo ko ñëw àggale ñu ne am na ku ne sëñ Bàkki Bousso am ñu ne maam Thierno moo wax ne moom kon moo na ñëwoon lu ngeen def ba julli jot na ngeen ko bàyyi dem dem julli kon ci loolu la leen sëñ Touba yoroon ci julli kon bokk na ci marché yi ñu ko jëkk a defal sëñ Mat Lamin nga xam ne ku ko jege woon la bañ tuddi ko aminu sirr cheikh mooy mooy secrétaire particulier rek ci jamono ji secrétaire particulier nga xam ne moo ko gën a jege moom la sëñ Touba wóolu ci sirrom def na ko marché yi bu gudd waaye bokk na ci lam ci wax rek nga xam ne wenn bayit lañ ciy jël tënk na lépp ala innahu naa in gaaba anna bi jismihi fa ma gaaba anna xayruhul mutajaddidu nee na sëñ Tuubaa bu ñu jëmmam fàddu ba duñ ko yit yiw yi ak lu baax lim def ci nun moom waxtu wu ne ñu ngi ko yëg waxtu wu ne mi ngi yees kon defe naa ne loolu rek doy na sëkk xam naa kon jataay bi tënk nañ lool dundug njaarem fukki at ak juróom benn sañ gis nga sëñ Moussa ci saw Chakour nit at ak juróom ñaar mun ta yem ak juróom ñaar juróom ñaar ci géej gi kon jësa moo tax dundug njaareem lu yaatoo yaatu la mooy dundug jiiri ci kon waaye ci tënk rek defe naa indi nañ ci lu xaw a loo xam ne mënees na cooy doylu ba ba dajewaat bari na insha allahu taala ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar yéen ñii nekk fii ci Sénégal wala bitim réew te am fi kër wala villa wala immeuble